combat spécial baa ngi noonu jël fu bébé Taya jël fu bébé Taya jël fu mooñ féete à droite reculé na waaw waaw dina gaay jóg leen bébé Taya man tur yi xaw ma yoon tur la bébé Taya jël fu eh, <laughs> xolam ma boobu la waatoo <laughs> laa ma ngi noonu Bébé Téya jël fu Bébé Téya jël fu jël fu moo ngemboo ngemb lu vert li Bébé Téya moo xees féete ñu à gauche Bébé Téya jël fu lewaatoo bi bar na Bébé Teya cokkaas na léegi fu Bébé Teya ñoo di demee wet jël fu Bébé Teya Bébé fu dooragul Julu fuube jël na tànk ba jël na tànk ba jël na tànk ba da koy dëj daan na ko benn congo la Bébé Teya na ko Bébé Teya jël na tànk ba Bébé Teya daan na jël fuu Bébé daan na ko benn cong la làmb ja jeex grand combat baa ca des